Amadou Fadel Niang muy suñu xarit di suñu wóllëre di suñu confrère mais loolu lépp li ñu bokk Sëñ Tuubaa nun moo nu ko ëppal doole moo tax bu xewlee faw ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw teew ñu dugg ci biir dégtal leen lépp lu fi amee mbokk yi jërë ngeen jëf internet yu BG TV ñu nuyu leen ziar leen mbokk yi tey ñu ngi fii kër Ahmadou Fadel Niang xam ngeen ko Fadel bu Dakar Buzz Dieye Production def lu rëy tuddee la bis di la sargal loolu nag bu ko defee ñun ñëpp la sargal mais nuyu naa la mon ami. maa ngi lay fay. di kontaan ci yow. tey programme yi bari na bàyyi nga lépp ñëw ngir sama jëmm. may ñaan yàlla taxaw la. lu nit di ci média yàlla nga am lu kawe sa jot. mbay ngay suma xarit di sama doomu ndey lii nga def rëy ci man lool. jéey nag amatuma lu ma wax ci moom. ndax suma xarit la. suma simoo la. Abdou Lahad nag kenn du moom. ndax Abdou Lahad yaakaar naa ne li mu ci man méritoo ma sax lu mu ndax Fadel lu mu am social la ko may lu mu am social ba tax ñu doon ko bàyyi xel ñu gis euh, social bi tey mu feeñ ci bis bi donte yow la ñuy sargal mais nga delloo ko ñi nga wax malade yi kii doomu Demba la Demba comédien ku ne xam ko ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mère Binta Faye sa yaay mi ngi nii sa digganteeg moom kenn dootu ko wax ci réew mi macha allah bis bi tey li ci ëpp da koo delloo social daanaka. waaw parce que Fadel lu mu am social la. ñii seen papa bi laataa muy génn àdduna damaa déggoon ñii. seen papa laa tamit génn àdduna dama déggoon ko ne ma ma dund ma dee say doom lan loolu dama koy kóol mottali di ciy gërëm Mouhamed Amar daf ma ciy dimbali ndax mooy fay jàngu ñii mooy fay seen location ay moom mi leen xamuñu dara dem ba daan ma wax fa bëgguma sama doomu yalwaan nanu jàng moo tax tey bi leen gisee dafa ne ma man yaay sama papa loolu rëy may ñaan yàlla bàyyi koog man yàlla defal ko jàmm màggal ko kii nag kii moom mënatuma am ci moom ndax kii mooy sama séeri mooy sama xarit ku ne gis maa ngi moom ñu bëri at moom nag na la jóge fii ba nga boru ñëw ci waaw moom sama xarit la xam nga moom baa ngi moom ñaar kenn lan muy saan mi lu ma ne mu ne ca tey bi ma waxee def na ma damay ñëw ci may na ma damay ñëw may ñaan maire Binta yàlla yàlla guddal tafan yàlla yàlla bàyyi la ak sëñ Moustapha li nga def lool te yàlla sàmm taxawu la walaay sama xol seet na ci yow yàlla sa jàmm yaag mère Binta Faye. yaay booy nuyu naa la. maa ngi lay fay. maa yaa ngi ci jàmm. ana waa Ngappal. tey nga ñëw sa bisu séeri Fadel Niang ku nekk xam laa ak moom seen diggante àddina yëpp xam ko loo ñuy wax. ma xawoon a jaga man de fexe naa ko. gàmmu gi macha allah. mu diggante Fadel diggante gàmmu gi ba suñu gerte tey jàmm ak salaam rek may gën a ñaan rek ñu gën a jëm kanam. ana sëñ Moustapha. sëñ Moustapha maa ngi koy ñaanal moo capitaine bu yàggul laa ko gis gisuma sëñ Moustapha wante gis naa capitaine ndax demoon naa si waawal sa meeting ba. kontaan naa ci yow. maa ngi lay wax ak waaw kontaan di ko ñaanal yàlla taxaw ko te sàmm di wax naa ngi jox ñëpp rendez-vous instant tey jéey dina gis lu mën sa gis. tey xanaa bis bi ñun ñoo ko jëlal suñu bopp amee tey jéey xaar ma maa ngi ñëw. yaa dugg ci jéewal dootoo ko defaat ko def. ay ni leen ko waxee tey xam ngeen bisu suñu confrère la Ahmadou Fadel Niang ñu koy ñaanal yàlla bis bi jikko ndax suñu xarit la suñu mbokk taalibe la mbokk yi nag maire ngeen jàkkaarlool nii yaayu Fadel yaay booy mi ngi ci séddale yi mi ngi ci wàññi macha allah yaay booy nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay sama nen tuuti. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant bu wér a wér di sant yàlla nag di la yonent bu tedd bi sant samay waajur sant sama sëriñ ba muy Alaaji Maxfu yàlla na yàlla seral ay yaxam ci barke Cheikh Mat Faaral barke Cheikh na Cheikh Sadbu ma leen di ñaanal nag bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne da ngeen a ànd ak faadal ba di ko sagal ndax kenn mënul dara mënees naa luyee sees waaye kenn mënut a luyee ay nit faadal fu mu yegg rek yéen a ko fa yeggal ma leen di ñaan yàlla na yàlla yeggale seen yoon moom nag dama koy bàyyi yàlla rek Fadel ba muy xale ba léegi may dund ak moom moom xam na man xam naa loolu lépp tubaarkàlla mi ngi koy fay ndànk naa yal na yàlla musal ci cak yeggale sunu yoon musal nu ci ndox jërëjëf mel ni tey mi yaatu na ndax ku ne xam na doom way juram bëggul lu dul ci moom lii mu koy bette mbégte di ko bette bànneex bis bi tey mbégte mi yaatu dëgg la waa am ci kontaante man ko gis nii ma doxalee xam ni kon béeg rek lan def béeg rek ndax daaw ba nu ko defee bee yoon dafa yema mamaay rek waaye tey daf fi ëpp loxo bu ëllëgee dañuy baas koñ ba koñ ndax ku ne dangaa ñàkk eh, ñaan yàlla yokku kon nan yàlla may yokku mm. ak xéewal ak gudd fan am kontaante na di sant nag sama bokk yi. gis nga leen ni. waaw kële maam Samba Gueye. waaw yaayu Balla. waaw kii ak Sagar Diagne kii Rama Thiam gis nga eh, eh. mooy bàjjenu mooy bàjjenu waaw kii mooy jaamu Fadel ñii ñëpp suñuy dëkkandoo ak suñu ak tubaarkàlla caata ngi nii kii mooy caat waaw nday maa peer waaw waaw ah. di ñaanal kii jaam ñaa ngi nii kii kolle jabaru murit kale awalaam mooy jabaru sëñ Xaadim mu ngoog ak ah, kii mooy soxna Bamba waaw ah, kii suñu jabar <laughs> mais ceebu jën bi ceebu jënu lan la Amina. Ah, kale mooy jabaru Bamba. kay suñu séeri la waaw waaw. yaay sey na boo ngi noonu. macha allah ceebu jënu ngewel ngeen def tey. lool na la def gis nga ko de. man lii ma gis nii. booli sëdd. waaw yaay tubaarkàlla 200000 ci jën. ah crevette beeg yëf yi gis nga nu de. yàlla na yokk. yaay amin bu déwénee dañu def jënti mbada. waaw waaw jàmm rek. kontaan naa ah, yaay kontaan nañu. merci beaucoup.